mbokki di rawati na mbokki talibé yi ñu yëkëti kaddu gi ci ndigalu sëriñ bi di sëriñ góor ji ibnu sëriñ musa di ñaan yalla suñu borom guddal ak fanam lool yok ak wëram dool ay eh, xéewalam eggale yéenam mbépp ci barke rom Tuubaa ginnaaw bañ leen nuyo yeen ñëpp ñu ngi leen di ziyara di ñaan yalla suñu kaddu fekk leen ci jamm ñuy dëgmal bis bo xamanteni bisub xéewal la bisub ngëneel la muy 24 heures qasida ñu di ko defee fii ci daaray sëriñ bi ci Touba Daaru Njar waaye ci daaray sëriñ góor ji ibnu sëriñ musa nga xamante ni bis bi lamboo na ay njëriñ yu bare bari waaye li ci njëkk rek mooy bu ñu fajaruk samedi gi allah bisu 31 décembre bi ci la ñuy wàccee alquranul karim ànd koog mboolem ndong yi nekk ci daara bi ñëpp lañ koy yendoo jàngum xasida alquran julli ci yonente bi saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak bernde noonu lañ koy yendoo ba julli timis ginnaaw bu nu jullee timis incha allah suñ xaadim njaay mi ñëpp xam nekk tuba kayar muy def fi conférence bo xamanteni bu mag la àndandoo ko ak mboolem jabot gi ñep ay ci lolé yépp itam ndigal li ñi ko jël ci Cheikh Mouhamadou aminta wacc ci Serigne Cheikh mi nga xamanteni mom moy lepp bis bi jaaré ko ci jëwrinam ji nga xamanteni moy Serigne gor mi wote bis bi and ko ak daaira jamaatu xidmatillaahi yépp ci njitu señ Ablaay ginaaw buñu démé ba julli timis ba nopi nak inshallah señ badal mi nga xamanteni mom moy jité julli gi di salatu tasbih ginaaw buñ conférence bé ba paré señ badal ja mom moy jité julli gi di salaatu tasbih ginnaaw buñ ko jullee ba pare julli ko nga xamante ne day far bàkkaar ñu ngi ci woo ñëpp waaye ginnaaw noonu itam njàngum xasida mi noonu lañ koy continuer ca fajar lañ ko tàmbali woon ba jant bi so ñu def conférence def salaatu tasbih waaye noonu lañ koy fanaane waatam ci guddi gi ba bët setaat incha allah bokk na ci jànkat di fii teew am nañ yéene ñoom ñëpp ñu teew fii waaye ku ci mel sëñ Ablaye Seck teewoon na fi daaw ku ci mel ne Baye Bolle Mbaye Touba teewoon na fi daaw ku ci mel Cheikh Ibrahima Diop teewoon na daaw ku ci mel ni góor a jum na fi daaw ku ci mel moo ko tëjoon waaye lu jiitu loolu itam kuréel yi nga xam ne moo nekk ci tund jëndeer yëpp mu ñu nekk li ko tàmbalee nootoo ba keraa ngay ñëw bayax li ko tàmbalee bayax ba keraa ngay dem kayaar li ko tàmbalee bayax ba keraa ngay dem tëngéej li ko tàmbalee bayax ba keraa ngay dem kilomètre cinquante ak mboolem koo xamante nag dégg nga woote bi rek ñu ngi la ciy woo waaw ci ab tënk daal mboolem ku naan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi lay woo ci bis boobu di 31 décembre ñuy def 24 heures xasida sëriñ bi di ko def ànd kook njaboot gi ñëpp waaye nag ci ndigalu sëriñ bi ñu boole ko ak salaatu tasbih ak conférence kon daal niñ ko mën a tënke daal bis bi bisu xéewal la bisu ngëneel la bisu yokkute la ñu ngi ci woo ñëpp waaye nag di ci jiital ñi nga xamante ñun ak ñoom ñoo bokk dëkk bi muy njabootu sëriñ Mor gi waaw li ko tàmbalee ci seex Cheikh Mamadou Aminta ginnaaw bu mu ñu joxee ndigal waaye mboolem njaboot gi moo xam koy doom wala ngay sët wala ngay taaliba wala ngay dëkkandoo yëpp ñu ngi leen ci woo suñ mbokki njar tijaan yi ñu ngi leen ciy woo waaye ba tund bi yëpp ñu ngi leen ciy woo te nag képp koo xamante ni dégg woote bi rek woote bi ngëneel la woote bi xéewal la foo xamante ni julli goo xam bu ko suñ borom nangoo rek far na sa mboolem bàkkaar yoo amoon ak yoo amagul woon kon bis booba teewee ko jar na ko alquraanu karim yi ñu koy ubbee xasida yi ñu fay jàng salaatu tasbih yi ñu cay def wala salaatu ala nabi yi ñu cay def maanaam ak bernde yaak lépp rek kon bis boobu noonu teew ca na ko waaye lépp itam ñu sante ko sëriñ bi waaw moo ñu ko dimbalee daaira jamaatu xidma lillaahi sëñ Ablaay nekk ca bopp ba ñu ngi woo ñëpp ñu nekk ci réew mi ñu nekk ci biti réew képp koo xamante ni yaa ngi ñëw na nga àndaale njàpp boo àndaale njàpp na nga yoraale kurus boo mënta jàng al alquran mënoo jàng xasida am na ay limi salaatu ala nabi yoo xam ne sëriñ bi dina ko fa joxe ñu àndandoo ko ñun ñëpp di ñaan daal ci màggu yàlla darajey Moustapha barkeb sëriñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall barkeb sëriñ Momar Dia maamam yàlla nañ ci daje ngërëmul sëriñ bi sëriñ bi yàgg koo woote ñu yàgg koo wuy si ñoo ngi ci woo ñëpp bàyyiwuñu góor bàyyiwuñu jigéen bàyyiwuñu mag bàyyiwuñu ndaw waaye képp képp kuy wuy si daal na nga wuy sooy ci ak taalibe képp kuy ñëw na nga ñëw ci ak dal képp kuy ñëw na nga ñëw ci ab yar nga xamante ni defuñu ko ngir càmbal cambal defuñu ko ngir am po defuñu ko ngir caaxaan bis bi day bis boo xamante ni iblis am n fu mu xëcc jëm sëriñ bi am fu mu xëcc waaye na ànd ak taalibe ànd ak yar ànd ak teggin. salaamaaleykum wa ci ndikalu sëriñ bi sëriñ Ngor Dia ci bés bi muy woote di bésu 24 heures xasida di tamit salaatu tasbiya sëñ bi di ci woo képp koo xamante ne rek autorité locale la nekk ci gox bi tàmbalee ko ci meeru gox bi di monsieur Alassane Ndoye sëriñ baa ngi koy woo ci gox bi ak équipe am yëpp. waaye tamit tàmbalee ko tamit le chef de l' état monsieur ak ko fi nekkal di monsieur Ibrahima Ndoye. sëriñ bi mu ngi leen di woo ci bés bi di woo monsieur Saliou Mbaye waaye monsieur Alassane Alassane Assane Ndir waaye monsieur Lamine Dieng ak bépp autorité boo xam ne rek yaa ngi ci gox bi Kayar maire Bambilor maire Kër Moussa le sous-préfet ak boo xam ne yaa ngi ci gox bi rek le commandant bu kayaar sëriñ bi mu ngi koy woo ci bés bi sëriñ bi mu ngi woo képp koo xamante ne rek yaa ngi ci gox bi di ci taxaw taxawaay bu am solo sëriñ ci bés bi nga xamante ni mooy 24 heures xasida di samedi bi ñu di le 31 décembre incha allah darunjar ci daaru njar ci kër sëriñ ngóor jar sëriñ mu ngi ciy woo ñëpp eh, góor muy muy mag muy ndaw di ci woo tamit chef de village yi imam yi ñëpp rek sëriñ leen di woo ci bés bi nga xamante ni 24 heures xasida tamit di salatu tasbih nekk bés bu am solo boo xamante ni eh, ba dee fiy teew ci kuréel yeeg yu ni mel njàngum xasida mi sëñ bu ngi ciy woo ñëpp bépp autorité la ci gox bi di sëñ baa lay woo ci bésam bi nga xamante ni mooy 24 heures xasida tamit di salaatu tasbiya di julli koo xamante ni euh, julli goo am solo la goo xamante ni képp ku julli rek suñu borom jégal say bakkaar kon sëñ baa ngi ciy woo ñëpp ci woo képp koo xamante ne yaa ngi déglu suñu kaddu rawatina mbooleem daayira jamaatul ma li nga xam ni ñoom ñoo bokk sëriñ bi te it di ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi ci loolu nekk sëriñ bi di ci woo daayira jamaa Touba Kayar di ci woo daayira jamaa Touba di ci woo daayira jamaa Touba Mbisaaw di ci woo daayira Jamaa Touba Daaru Njar di ci woo daayira Jamaa Touba Sanc waaye tamit di ci woo daayira Jamaa waa diaspora sëriñ bi mi ngi ci soññee di ci gën a feddali kóllëre waaye di ci taxawu taxawaay boo xamante ni kenn ku ne ci ñun am nga yaqin ni la ciy sëriñ bi def war ngaa mën a def lu ko ëpp kon jaayante boobu ak taxawaay boobu ñu ngi ciy soññaat bu baax mbokk taalibe yi gën ñu fekk ci sëriñ bi ci bisam bii ndax bis la boo xamante ni ni ko jëruñ ñi waxee dafa am ay tawféex yu bëree bëri nekk ci biir rawatina salaatul tasbix bi moom nga xam ni julli la goo xamante ni la ca nekk ci xéewal kenn xamu ko ndax jamono ji fu mu toll jamono ji lu mel waaye occasion mu nekk sëriñ bi indi ko nga xam ni manqué na ci àdduna manqué na fii ci suñu suñu suñu tund sëriñ bi nekk indil ñu ko ngir ñu mën cee profité ngir defaru rawatina li nga xam ne moo di 24 heures xasida képp ku ko dégg rek sa xel war a dem ci loo xamante ni moom la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul daan jaayante ba tey ji ba ko fi ñu ngi mën a faje aajo yi waaye di ci man di di ci dégganteeg suñu borom kon sëñ Ngor moo woote te saa yu wootee rek képp koo xamante ni yaa ngi dégg woote bi war nga cee mën a wuy si waaye ci jiital ñi nga xam ne ñooy di daayira jamaatul xidma la ñu ñoo taxaw ci liggéey bu baax a baax a baax sëriñ bi indi ci innovation yu rëy nga xam ne barab bi kanam waye day jëmele l'islam kanam day jëmele lepp lo xamanteni suñu borom bëgg nako kanam muy fàttaliku jëm ju baax jëm jo xamanteni yag na taxaw doomu adama ci njàngam alxuraan ci njangum koku nek moy di seigne Abdou Bousso Dia di njabootu sëriñ Momar Dia nga xamni sa yu ñu ko musaan gis rek suñu xel day dal suñu borom dogal Nek sëriñ bi di ko fàttaliku ci bis bi dara jale ko bis bi ci mbaxam ci tawfiixam ci lépp loo xamante ni daal xam nañ ni dina ci am ngërëmu suñu borom loolu nag day ñuy fàttali ni sëriñ bi kóllëre gi mu am saa su ne mu ngi koy gën a feddali kon nag ñuy ñaanal suñu Abdou Bousso Dia suñu borom yokk leeram te taasuñ ci baax barkeem sëriñ bi nag am innovation bu am solo bu taw féexe lool ci bis bi muy loo xamante ni mosuñ ko dégg ci woote yi mu woote waaye ren nag mu fas yéene ko tàmbali ci ki nga xam ni moom mooy établissement Lion de nekk foofu ca Bayax sëriñ bi jël ko boole ko ci bis bi def ko euh, sponsor officiel ngir ànd ak moom ci liggéey bi loolu tawféex la ndax lépp loo xamante ni kóllëre la sëriñ bi da ci taxaw ba mat sëkk te xam na ni euh, barab boobu loxoom génnu ci ci tàmbali ga ba fi ñu yegg si kon boole na ko ci bis bi mu nekk ci sponsor yi ci taxawaay bi mu taxaw kon woote baa ngi noonu 31 décembre képp koo xamante ne boo mënee fanaan si le 30 def ko ndax lépp ci tawféex bi la bokk waaye tamit sëriñ bi di sàkku ci mbokku taalibe yi képp koo xam te ne ñëw nga fi ci bis bi sëriñ bi mi ngi lay ñaanal ngir nga mën fee toog ba keroog muy indi ñaan gu mujj gi ñu mën ko séddoo ñun ñëpp ba keroog sëriñ bi di ñu yeewi ñu soog a dellu ndax ñëw fii ci barab yeggale mataloo daal di dem mel na ni ñëwoo fi kon sëriñ bi mi ngi ñaanal ci mbokku taalibe yi bu ñu fi ñëwee nañ fi fekk si tawféex ànd ak moom ci tawféex ba keroog mu yeewuñu ñu soog a delluwaat ca barab ya auzu billah bismillah inna waliyallah salaatu wasalaam ala rasulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi yëkkat suñu kàddu yi ci kàddu suñu kilifa yi nga xam ne suñu yëngu ak suñu dal lépp si ñoom lay bàyyeekoo nga ci jiitu mooy suñu waajur bàyyi moo di Aminata ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér di wàcc ci sunu kilifa Serigne Cheikh mu Serigne Moussa ñaan yàgg fi loolu te ànd ak xam ne lépp ngeen gis ñu koy woote baa ñu ciy dox jëm ci lu ngeen yëg ak lu ngeen yëgul seen ndigal lañ koy defee ndax kër gi këru taalibe la te këru taalibe nag këru ndigal rek la. ba tax laata ñoo def yenn jéego dañ cee waxtaan ak suñu kilifa yooyu di waaye mu jaaminata ak Serigne Cheikh di ñaan yàgg fi loolu te ànd ak wér ni ko mbokk taalibe yi jiitu waxee rek noonu rek la. mooy maj moom nóoré ni moom moo jël sëñ cànnaar géey moom mi di sunub taalibe sëñ cànnaar nee na ba mu koy teg ci kanam mbooloo mi sëñ cànnaar fekkewu ko mun leen sëñ cànnaar géey daal doy na ma ci mu jiite liggéey bu mel ni nga xam ne daayira ci tund yëpp la ci boole maj moom nóoré ni ci turu sëñ cànnaar nga moo waroon a ñëw <coughs> teew woo leen ñuy woo waa daayira xaside yëpp ci jaare ko ci maj moo nóoré ni boobu mu wàcc ci njaboot yëpp waaye sëñ Abdoulaye Seck ñu ngi koy woo mu tamit nga xam ne at yëpp mooy jiite liggéey bi ku fi kàddu moo la ko jox jiite ko jiite wuñ bu rafet a rafet a rafet kenn merul kenn kenn kenn xàddiwul kenn deful dara kenn lépp mu koy gérer loolu doon lu jafe yëre bés bu toll noonu vingt 24 heures ngay ngay joxe ay kàddu te kenn meru ci kenn xuloowu ci sëñ Abdoulaye Seck ñu ngi koy woo ci bis bi di am xol bu sedd ci taxawaay ba di sant mboole seen ñëpp rek góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi waaye sëñ Xaadim Njaay Kayaar nga xam ne daanaka daaw bi ñu koy wax bés xoccoon na lool waaye mu bàyyi lépp jaayante ba teew fi def waxtaan mu ama am solo ñu ngi koy woowaat ci bis bi di ko ci séenu waaye di sant bu baax a baax a baax nag waa établissement Le mm, Lion di Jandeer muy mm, fast food bi nekk fii ci Bayax doon suñu sponsor officiel te mu jàpp lool ci liggéey bi su ko jiitee di sëñ Mbay Diop doon suñu wëllëre démb ak bërki démb kon bu taxawee lii ci tund wi mu doon jariñ ci ñëpp kon su bés bu toll ni amee ñu woo ko ci sponsor mu nangul ñu ko jàpp ci liggéey bu baax a baax a baax a baax kon ñu ngi soññ seen njaboot yi foofu nekk seen bërëb ñu fay faral di jaar surtout ñi nga xam ne dañuy tukki na di yóbbul soxna yi sëriñ ndax dafa am solo dafay joxe yu am solo yoo xam ne di ko yóbbaale dina am solo ci ci njaboot yi kon ñu ngi ciy soññu njaboot yëpp di leen wan ne ñoom daal suñu sponsor lañ te nag sponsor da jàppale nga jàppale ko tamit ñu koy ziar bu baax sëñ Bay di leen woo ci waat ci bés bi ndax ñoom sax wuy si nañu waaye gën leen a woowaat rek wan leen ne ñoom ñoom ànd liggéey bi noonu la ñuy woowee mboole seen njaboot yëpp di sant bu baax a baax sëriñ Xalla mi nga xam ne moo ñu indil waa chaîne bi nekk Chez Blue TV ak euh, sëñ Sylla mi nga xam ne mooy ñu def jotaay bi te ànd ceeg yar ak taalib bu baax a baax ak professionnalisme ñu ngi kontaan bu baax a baax ci liggéey bi am daal li am solo mooy ñu xam ne rek li sëriñ Tuubaa waxoon man jàngalal xayra makaana sari makaana sari jooy la amruhu ajjal biir nee na fu ñu doon def ak safaan ku fa jëlee safaan ba def fa aw yiw def na dundam gën ngaa màgg yiw kon moo tax rek ñun tamit suñu yitte guddi bëccëg suba ngoon fu ñu fekk safaan rek jéem ko wëlbati def ko yiw ndax loolu la suñu maam doon def loolu la suñuy waajur doon def kon mu ñu fi bal bi egsi si suñuy tànk ñun tamit dañoo war a def lépp pour marqué bii na suñu maam yaak suñu bàyyee marqué bii bokk ci way wi way ku ne yaa ciy boole sa bopp bu ñu tuddee Serigne Mor Dia ñu ne eskay ndax jëfam ak taxawaayam buñ tuddee Serigne Moussa ñu ne eskay ndax jëfam ak taxawaayam waaye loolu doyul ci sëñ góor sëñ góor daa war a fexe moom tamit nag bu fuñ ko tuddee ñu ne eskay ndax ni ma maamoo ci Serigne Mor Dia bàyyee ko ci Serigne Moussa ëllëg noonu la ñuy amee ay njaboot ñu bàyyee ci sëñ góor maamoo ci sëñ góor kon nag dañoo war a fexe ñun dem dañ suñu maam way utalee way suñuy bàyyi utaluñ ko way ñun tam ñu dul ko way suñuy njaboot looloo war noppul warta am guddi du am bëccëg bu dul bis bi sax ci salaa tasbih 24 heures xasida saa yu nekk ñu ngi ci liggéey yu mel noonu ngir rek ëllëg ñu bokk ci way wi te way wi nag kenn du ci bokk ci noflaay kenn du ci bokk ci wax lu la neex bokk ci dem fu la neex kenn du ci bokk ci def lu la neex kon ñu ngi soññaan ñëpp di leen te di leen seenu di ñaan rek ñu yegg ceeg jàmm te weesu ko yàgg woo te jotaay yu mel nii xanaa lu ci des nag incha allah buñ dajee ci bës ba waxtaan yaak laayante biir yaak yëpp ku ko fekkee rek doo ko dégg incha allah ñu ngi santaan ñëpp lu jub suñu borom la lu dëng du woon suñu yéene salaamu aleykum rahmatullahi taala wa barakaatu